24 l'opposition du chacun pour soi entre guillemets a-t-elle une chance hmm. Hmm. waaw xam nga lu tax euh, parce que dama jàpp ne peut-être mënuñu fu ñu tollu ni tembe ndaxte bu ñu xoolee processus électoral nu mu demee dafa mel ne nekkul opposition chaque pour soi mais am na fu ñuy toll ku nekk tamit di nga teg ci langue ji euh, jéem natt sa bopp hmm. dina am loo xam ne ala kulli xaalin bu ngeen fa tolloo ci processus électoral ala kulli xaalin opposition day dajaloo. am na foo xam bu ñu fa tolloo mais am na tamit fu ñuy toll tamit ku nekk tamit dangay demal sa bopp loolu ci mel ne bu ñu waxee wuti parrainage man du ma ànd ak damay wuti beneen parti day wut kon ku nekk si ñun day dem wutal boppam. waaye bu ñu seetloo tamit bu ñu demee ci parrainage bi pour jël euh, exemple ci lool rek ci misaal bu ñu demee bañ ñu gis ci yoo xam ne jàpp nañ ni demeewut nu mu waroon a demee wala melut nu mu waroon a mel boo xoolee tamit même bu fekkee mu mënuñ wax ñu fa déposé ñëpp parti yëpp la mais lu bëri ci opposition bi parti yëpp même ñu jàll am na jóg nañ taxaw ne nuñ ko defee am na ci loo xam ne du lu gën donc foofu bu ñu ko xoolee ne mënuñ wax ne c'est chacun pour soi mais am na au moins soo xam ne sur l'essentiel man li ma jàppee ne mooy les questions essentielles nit ñi mën nañ ci tënku waxtaan parce que jamono ji bu ñu toogee di naan fichier électoral bi par exemple parti yëpp di ko laaj wala candidat yëpp ku am candidat di ko laaj loolu nekkul benn parti opposition rek bu ne mun na engagé xeex bi génn ci day wax lu ko neex. parti bu taxaw ne moom képp bu ne mun na engagé xeex bi génn ñi day wax ku ne wala benn parti opposition bu jàppee par exemple taxaw xeex pour engager nañu ñëpp mun a accéder fichier électoral bi contrôler le processus bu ñeneen ñi jàppee ne xeexu benn parti tamit ñeneen ñi dañuy nax suñu bopp parce que ñun ñëpp. ñoo am intérêt mun a jot ci lu mel ni fichier électoral bi pour mun ko saytu ba xool ndax lu ñuy ragal newuñ ci wala lépp jaar na yoon pour ñu mun a dem ci électoral lool benn tam beneen bi tamit mooy ci processus bi am na tamit opposition loolu dafa nekk une habitude au Sénégal mooy si processus bi mun nañu gis luy xaw a mel ne parfois ay divergence entre partis d' opposition mais man li ma ci seetlu sur le peu de temps li ma pratique euh, sans pratique euh, électorale mooy que à chaque fois bu ñu dem ba egg si cappaandaw par exemple instant yi ñu ngi commencé distribuer les cartes au niveau des sous-préfets au niveau des mairies yooyu. Mm-hmm. te loolu dama seetlu même bu ñuy def révision bi parti d'opposition yi dañu doon relayante bu fekkee par exemple fii mun nga fi ñëw nga fekk fi PDS am fi représentant peut-être Pastef am fa représentant mais représentant PDS bu fa toogee. Mm-hmm. bu représentant Pastef ñëwee daf daf koy rendre compte pour ëllëg si biir moom bu amee gàllankoor représentant Pastef bu fa toogee mooy mu ñëw rendre compte ne ko fii fii c'est-à-dire que dañuy relayante gis gëm naa ne bu ñu demee instant yi fu ñu toll ci distribution des cartes opposition bi parce que tamit opposition bu ñu koy wax bu ñu gis rek loo xam ne les états majors au niveau national dañ koy def am na loo xam ne état major yi au niveau national ñoo koy def mais man su ma jëlee misaal ci man man Guédiawaye laa jógee mm-hmm. am na loo xam ne tey que sama parti waxtaan kook au niveau national wala bañ ko waxtaan au niveau national am na ñoo xam ne ñun ñoo xam ne ñoo bokk Guédiawaye et on veut que l'opposition les élections prochaines au niveau de Guédiawaye on est obligé sur certaines questions de mutualiser no forces de mutualiser nos ressources humaines pour mun a dem pour foofu parce que xam nañu bu desee ba ci ñun kese contre le parti bu fekkoon sax da ngay dem rek ci ci mbir mi nga xam da ngay jàkkaarloog parti au pouvoir rek du nekk problème mm-hmm. mais da ngay jàkkaarloog un parti au pouvoir qui mobilise les moyens de l'État te su boobaa nag pour ngeen génn ci à la kulli xaalin que ce soit au niveau national que ce soit à la base ngir mun a trouver des points de convergence des moments de mutualisation des moyens pour mën a liggéeyandoo ensemble. du tere nag du wàññi dara ci ku nekk si ñun nga am say ambition personnelle parce que c'est ça aussi la démocratie war nga am say ambition ak légitimité pour jéem a conclure parce que c'est ça aussi l'objectif des partis politiques dans le jeu démocratique. opposition bi daal noonu loolu moo gën a gum ci ñoom en attendant en attendant du voir beaucoup plus clair. bon pas pour l'instant sax mais pour la démocratie sénégalaise loolu moo gën ci. même ci démocratie sénégalaise okay. parce que bu fekkoon da euh, jeu politique démocratique sénégalais dafa nekkoon parti rek ku nekk da ngay dem parti bu nekk au pouvoir doo mus mobiliser état da ngay mobiliser appareil politique kes faire face au parti de l'opposition parti bu nekk peut-être nga wax ma mun naa xeex mais le problème mooy que Sénégal dañoo egg foo xam ne malheureusement pour nous ba fu ñu toll à chaque fois parti bu nekk au pouvoir benn instant dafa xaw a boppam ak état mm. te boo confondre sa bopp ak état nag c'est il n'est jamais facile de faire face à l'État mais au moins pour lui mettre la pression et mettre la pression sur cet appareil là il faut que ñëpp mën a tënku def benn say d'accord